te xasida dafa am lu ñuy wax buuñaa bu ñoo jox sunu bopp di ko joxaale mbokk taalibe yi yaatal ko sax joxaale ko mbokk jullit yi ndax ñëpp xaj nañ ci lu baax waaw lu sëñ Saali wax rek lu suñ borom bi xatalu moom du ko xatal mukk kon taalibe ci foofu lañu war taxaw buuñaa bu njëkk bi moo di taalibe bu nga xamante fa lañu war a pour durus ay xasida ci sa néeg wala ci sa saal nga xamante ni liggéey bokkul ak fooy dem ci mbooloo sa liggéey bopp ba ngay def ci xasida yi wala dafa jàng alquran ñu baaxe suñu bopp baaxe leen ci lii bala ñuy tàmbal liggéey bi nañu julli ñaari rakka rakka bu jëkk bi dina jàng faatixa benn yoon ak qul yaa ayyuhal kaafiruuna benn yoon rakka ñaareel bi dina jàng faatiha benn yoon ak qul huwa allahu ahad benn yoon suñu sëlmalee suñu boroom dana yebal ay malaaka ñu leen di tawaaf ni ñoo tawaafe kaaba gi lu yéeme la xoolal loolu nu mu yombee ci jëf ak nu mu réyee ci fa suñu borom ak nu mu màggee ci malaaka yi malaaka yi bokkul nag ak nañoo tawaafe kaaba gi di wax في بنو تواف دي وخ سبحان ملاك بنو تواف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لولا ملاك دين في دي وفوف نيوم لي ورد وخ لول تيب لب لو في دف تي خيتي جام يالا نيوكاي جيل دم يوب سونو بروم دا ني نيم ملاك يي ño séré sa jam bi ci lim doon def الله lu jara japp la ñaarelu buñu bi mi ngi jëm ci xasida gu ñuy wax mawaahibul ilaahiya mawaahibul ilaahiya sirru allah muhammad la kon saa yu koy taalibe di ko jëfe allahu muhammad waxoon naa ko xaqiqaam allahu mooy ayatul kursiyu Muhammad bi mooy Muhammadu rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffar mu nekk ci soortu Fatx moo tëj aaya bi moo tëj saar bi lii mooy xaqiqa Allahu Muhammad nga xamante ne dañuy julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi gannaaw Fatiha nga indi ayatul kursi yi def ko 66 fois ñaareel rakka bi soo jàngee Fatiha da ngay indi ay Muhammadu rasulullahi def ko 92 fois. moo jàpp 158 muy allahu muhammad soo sëlmalee nga def istigfaar 70 fois def salatu ala nabi ñaan sa soxla indi am lahlama hudu ñi di wax amul lah manam yax bi daal benn la maski yi da gis fi ñu indi amu fi ñu indi am nga xamanteni waye man la ci wax rek djublu ci mbir ma soo ko wirdee cent cinquante huit soogaa jàng nag mawaahibu ilaahiya ku koy def di nga xam ne dëgg-dëgg xasida googu jar na jàng waaw lool ndax leeru yàlla dana tàbbi ci sa jëmm ji bu ku la gis xam ne ci gaañu nga bokk te xasida lu nga xam ne gaaw na yeggale lool nit ci boroomam ba muy yëg digganteem ak boroomam li nga xamante ni mosu ko yëg te mosu ko xam ba muy xam ci digganteem ak boromam loo xam masu ko xam loolu am solo la ci xasida gi di mawaahibul ilaahiya lu jar a jàng la ñaareelu ñaar bi moo di xasida bu sëriñ bi tënki sajal allahu baada usrin yusran maanaam nit ki su amee lu jafe te mu bëgg mu yomb ko mu xasida googu waaye day wirde aaya bi ci adadu nafsin muy junne juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom benn moom lay wërde aay bala muy jàng xasida gi sëñ fàllu ci mbaaxam bi sax génne na ci turu yàlla bu ñu wax wal xashun wal xashun soo ko àddadee daf lay jox 1636 mooy junne ak juróom benn téeméer rek fanweer ak juróom benn kon ku wirdi aaya bi ci loolu wirdi tur yi ci loolu nga jàng xasida gi yàlla mën na jàppandalal li nga xamante ni jafe na ci soxla ba nga amoon waaw kooku bokk ci duñaa yi xasida gu ñëw ala man ala yow lastu sadix xasida googu ku koy jàng guddi xasida gu gaaw yéegi nit la waaye jàng gi guddi moo ci gën ku koy jàng guddi de hmm, daa yéeg de su saxee de fu gaay di dem da ko mos lu ñuy gis da ko gis lu ñuy xam da ko xam gaay gaañu moy gaay yu bax ñi nga xamanteni su ñepp tuddé guddi di dal ñom ñu défier lu tubaab di wax le loi de la gravitation pour dem ci pays yalla yi ñoo ñooñu lay wax kon jang ko bax na lool ndax day yéege manam mhm. kuy wut jaxoso boromam waxin la waaye jege bi lay jege sa borom dil fartaal di jàng xasida gi te di ko def guddi ku bëgg hadiyaal cheikhul qadim radiallahu taala anhu wala ñaanal ko am na xasida bu nga xamante ni loolu moo tax sëñ bi bind ko muy afdalu ziyaara aw afdalu hadiya ku ko jàng ku ne jublu ci ziyaar sëriñ bi day mel ne fekk nga ko fa mu toog nga joxanteeg moom loxo ziyaare ko day mel na it yëkkate nga sa hadiya teg ko ci loxo te ñaar yëpp mu nangul la kon xasida la gu jar a jàng waaw kooku bokk na ci buuñaa yi daf ci am benn bayit madaliya tuhra bilaa injaasi man qaadani am na bilaa ijaasi bayit boobu loolu it nañ ci bàyyi xel bu baax am na xasida bu sëñ bi tënkee yow ma mawlidi haza mawlidihi haza nga xamante ni xasida gi ñuy tàmbalee yacbudu kullillahi rabbal alamin inshaahu bi xidmatil haadil amin xasida la bu nga xamante ni bayit boo ci jàng am na taxawaayu ñaari at yoo xamante ni danga koy jaamoo yàlla te suñ borom bi nangul la ko guddi yi ngay fanaane naafila di ko fanaane jaamu yàlla ba bët bëccëg nga koy fanaani war boole ko ak jaamu yàlla taxawaay boobu lay taxaw te xasida gu gàtt la ndax fukki bayit la ak ñaar kon saa yu ko nit jàngee benn yoon bindal la yoolu ñaar fukki at ak ñeent yu nga xamante ni sans arrêt da nga koy jaamu yàlla te mu doon jaamu yàlla gu suñ borom bi nangu kenn xamul xasida borom Tuuba am na xasida gu nga xamante ni allahu kaamilun mukammilun siwaahu wal kawnu kulluhu lahu wa ma xawaahu xasida la goo xamante ni ñetti bayit rek la ñetti abyaat ku koy jàng ku ne sunu boroom dal musal ci gis ci biir bàmmeel munkar ak nakiir te ku jàng xasida gu mel ni jësbatu sixaar lu ci sëñ bi wax ci ñaari jëmm yooyu yéeme na seen kàddu yi mel na buy riddi seen gémm yi mel na ay ferñeent ciy génn seen bët yi mel na melax buy këfe ñàng bu ñu ñàng ñooñee ne nit su faatoo ba ñu denc ko ruumaan mooy jëkk ñëw daanaka gaawal gaawal bindal say jëf gaaw ndax am na ñaari jëmm yoo xam mosu ma gisee ñoom te ñaanuma yàlla gisee ñoom ci kaw ci ci ci ba faaw te boobu itam muy muy malaaka mi ngi muslu ci munkir ak nakir kon ñaari jëmm yooyu lu jar a muslu la yàlla yàlla musal ci jëmm yooyu ba duñ leen gis mukk te ku dugg ci biir bàmmeel kat jazbatu saxaar sëñ bi wax na ni ku ci faatu guddi àjjuma wala bés ba wala nga feebar jàng ñetti sortu ixlaas jublu ci saafaraw loolu moom yàlla mën na lu musal wala ku dee ci feebar mbas wala ku saxaar di jàng sortu mulki yàlla mën na lu musal ci yooyu waaye la ku dul yii fu nit ki mën a faatoo daañ ko dajale ndonte dafa dox ci àll ba ay gaynde lekk ko ba ay yax daj des fa daañ ko dajale laaj ko waaw kon ñooñu ñu jaru musul lañu xasida gii nga xamante ni moom la ñuy wax wa inni samaytuha Maryam xasida gu jar jàng la ndax ku koy jàng da lay génn ci sikk sàkk jëmale ci yaqin xasida la goo xam ne ku ko saxoo di ko jàng day wéral sa imaan te loolu rekk jara sàkku te xasida la goo xam ne ku koy jàng day laabal sa xol te koy leeral it nag xasida xam ne ku koy jàng la alxuraan di wax ne mooy jëm mooy jëriñe yowmal qiyaam foofu la lay yóbbu mooy xalbin salim kon xasida gu jara jàng la bëggoon naa sax de buñaa ci rahmaan rahim muy rabbi bi ma waaye comme dama am yéene defal ko émission boppam moo tax ma bàyyi daan ni naa bàyyi ba beneen kon lii moo doon buuñaa yi nga xamante ni indi nañ ko ci waxtaan wi di ñaan yal nañ xasida yi jëriñu ñu jëriñu ci zaahiran wa baatinan te lépp lu ñuy yóotu àddina alaaxira barsax sëñ Ablaye Sarr bi mu fi ñëwee wax na ko waaw mu ngi ci biir xasida yi sëriñ bi xamna ci sax lépp lu jullit soxla kon la jëkk wax aduna àddina bar sax serigne bi xamna ko ñaan nak sun borom defal nak def nak ci bir xasida yi ñaan na ci ba ñaan noo xamni sax jullit xamuko nit xamuko waaw lépp lu jullit wara muslu ci àddina ak bar sax serigne bi xamna ko ñaan nak sun borom musul nak mucc ci tàbbal nak ci bir xasida yi muslu na ci ba lo xamni ne jullit yi xamuñu ko sax nit ñi xamuñu ko te sëñ bi musul musul musul musul musul na ci suñu borom ba yàlla muccal ko ci mu def mucc googu ci biir xasida ndax sëñ bi lépp lu mu ne yàlla defal na ma ko jamono ju mu koy bind fekk weesu na loolu waaw ku yéene Cheikhul Xadim waaw yal nañ ko yàlla fayal yal nañu sëriñ bi bëgg ci ñun lu ñu bégee ci moom te loolu moo jar a sàkku yal na sëriñ bi bëgg ci ñun ñëpp ñun taalibi Cheikhul Xadim ñun jullit yëpp ndax lu baax moom ñëpp ci xaj te lu baax yéene nañ ko ñëpp rek waaw ñu lu baax yéene nañ ko ñëpp waaw dama ci sant bu baax ndax am naa sam benn wóllëre ku baax la taalibu cheikh la ku baax la ku bëgg jaamu yàlla daf ma woo daal na ma man kat dama doon seetaan YouTube rek ba gis émission ma